कुछ नहीं ये वाला soxla taraayam ci waawam Aliou si liñ mën a si borom bu nekk Aliou si borom sa cere yàlla bi borom man de ma Cheikh Sidi Hadji Malick si Maodo. am na morom. am na morom. d'accord ni Maodo amul morom jataay bi yàlla bu mu nekk sunu mujj jataay li tax nu daje fi mu di feddali yaakaaru ci jeexal mbuusu mbuusu ci wàllu daayira yàlla nañu ko yàlla defal jaamu yàlla bu yàlla nangu lu ci nekk ay yiw leer ak xusuus yi yàlla na ko yàlla dotti ci bàmmeelu wéy ju yi ko yenn woon te jiitu way jur yi fi desan yi ñu tudd ci bàyyi Babacar Ndiaye tudd ci bàyyi alxaaji mu ngoone sàmm ak mag ñi mel ni ñoom ndax ku doo matal yàlla na yàlla doon lee kelkelal seen yaram way jur yi ñu ko yem tey ñu toogee jataay bi di tudd ci alxaaji Baye Mbër Ndiaye tudd ci alxaaji Baye Malick Fall ak mag ñi mel ni ñoom li jafe mag mu di wér yàlla na yàlla doon di leen nuyu bu baax زيار قباخ تتغل قباخ زيار استمداد سنو مرشد بوتد بيتو الشيخ سيدي محمد الحبيب كبه الشيخ سيدي الحاج مالك رضي الله تعالى الشيخ سيدي ابو بكر سيد وسيدي عبد العزيز الامين الخليفه التجاني رضي الله تعالى عنه بيب في ياكار بمكني امون كي فيك فيك Seydi Abdel Aziz Al Amin yàlla na ko ko yàlla ràññ yàlla dotti ko ko ci barke leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sunu waajur bu tedd bii di Baye Babacar Ndiaye dañu def salaatul fatiha def ayatul kursiyu qul huwallahu ahad falaqi adna suñu jotaay daje bi yàlla ne yàlla def mu am réussite am na ko ba pare déwén incha allah yàlla nañ fi dajawaat thème bu mel nii bu ko mi nga xam ne moom moo koy teewe di ko taxawee di sànq ci xaadara Cheikh Al Hadj Malick yal na yàlla yokk fanam yal na yàlla yokk suturaam yal na yàlla yokk ay teraanga barkeel njabootam Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom mooy président xale yi te yàlla def mu xaw a tawat yal na yàlla saafara yal na yàlla saafara yal na yàlla delloo ko ak sago Euh, képp koo xam ne rek yaa ngi feebar tëdd ci hôpital yi wala di ko doxaale ñu boole jowaale suñu mbokk suñu xarit suñu mag di El Hadj Momadou Samb allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ñu def ñaan bi sa jamono indi mu nekk ay jumtukaay yu yàlla teg sa loxo di ko jëfandikoo ci jëfandiku bi nga xam ni day tegu ci sharia ak sunna loolu rek moom moo ci am solo te loolu génn ëttu Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu taala bu ko defee ni ñu bëgg tërale programme dañu amoon aada xew-xew yu mel nii bu amee li ñu bëgg yépp ñu jiital ko jox kilifa gi mu soog a waxtaan léegi dañuy indi stratégie boo xam dañuy jukki ñaari kàddu yu mënul ñàkk ndax ku xam daayira muxsinina wal muxsinaati keroog bi réforme bi di wàcc Mawlaaya Seydi Abdel Aziz Al Amin Al Khalifa Atijani radiallahu anhu di ko dénk mag ñu tedd ñi dëkkoon Thiès ñu symboliser ci suñu wayjur bu tedd bi toog di bàyyi alhaaji Mbay Njaay bokk na ci mag ñi nga xam ne gémmiñu sëriñ Babacar Si da ko daan dëpp ci noppam gemmi ngi di laal noppam moom bokk na ci mag ñi bànneexoo lool ci Cheikh Seydi Aboubacar Si kon moom bokk na ci mag ñi dénkoon réforme bi indi sunu ñaari waajur yu tedd yi toog nekk conseiller technique bu fédération bi téye ko ci seen loxo di ko piloté ñu askanale ko alhaaji bab Ahmad fay ak ñi mu ko séqal alors que ñoom ñoo koy doxal ci biir mu di Baye Mbër Ndiaye ak alxaaji Malick Fall bi moom la mag ñi jëloon mu nekk daayira example moom la ñu sukkandiku muhsinina wal muhsinaati pour indi réforme bi Serigne Abdoul Aziz doon jàngal ndax prototype bi Serigne Abdoul Aziz bëggoon fekkoon na ci muhsinina wal muhsinaati kon alhamdulillahi rabbil alamin mu mel ni couche yëpp amoon na fi ñu koy doxal ni mag ñi bëgg moo tax réforme boobu seen tur nekk ca biir kon yàlla ko daayira bi moom bu ñu toogee tey nag réforme boobu di dox ba ñuy bokk benn jataay di ko séq ak waajur yu mag ci benn mbalaanu wasifa te terewuleen li ñuy doxal ci wàllu coordination des daayira tijaan de Thiès de la fédération ñu rek doxal ci seen guddi àjjuma alxamis ak ñi ñu ko settal ci walu seen sababu tarbiya loolu defe naa ni daayira bu nekk ci biir fédération bi rek muhsinina wal muxsinaati war na leen servir d'exemple mu mel ni kon ñaari entité ko seq muy li Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu waxoon ni magi kese man Babacar awma ci yaakaar ndawi kese man Babacar aw ma ci yaakaar ñu ni ko lu tax mu ni magi kese am nañu compét am nañu expérience waaye amuñu compétence ndax dañoo magi seen kàttan dafa raaf mu ni ndaw yi kese am nañu kàttan compétence waaye amuñu expérience ndax ndaw du muus lu ëppi atam mu ni kon bu ñu jëlee expérience su mag ñi foofale ko sëyale ko ak compétence su ndaw yi ñu mën a tabax ëllëg bu dul maam moo tax muxsinina wal muxsinaat ca fondation fédération des daayira tijaan de Thiès et banlieue ca ba suñu jom yàlla tey daayira pilote la ci fédération ndax ëllëg bu dul mag mooy wëndeelu génération yi di ko donnante ba suñu njaboot yu tedd yi doon ko mu di njaboot bi way jur bi tudd léegi mu di Mamadou Ndiaye di président di soxna Anta di président ñu jukki seen tur ak ñi ñu ko séqal ñëpp. kon ñaari couche yooyu dafa am ñaar ñu leen di représenté yëkkati kàddu ci seen tur ki ci jiitu mooy suñu rakk Abdoulaye Samb mu yëkkati ko ci turu daayira bi waaye ci ndigalu président daayira bu yeggee suñu waajur bu tedd bi di bàyyi alxaaji mbër mu yëkkati kàddu ci turu waajur yi yóbbaale géew hommage bi nga xam ne njaboot bi defal nañ ko waajur yi ñu defal hommage duma ci dugg Abdoulaye dina leen lim seen tur moom moo leen di yóbbaale géew yóbbaale géew kàddu way jur bu loolu weesoo njaboot bi am na ay diplôme rek yuñ fi bëgg a joxe nu jox sëriñ bi micro bu yeggee am na ñaari parrain yu tedd kenn ki moor wax na xam nga daayira nga bokk ci sa sababu tarbiya nekk ci liñ ci war a def yépp nga def muy Mawlaaye Abdoul Aziz Jaxate bu sunu waajur bu tedd bii toog njaboot gi wëlbatikuwaat dugalaat ko def ko pare loolu jàngale mbokk la yal na yàlla saxal loolu ci gox bi bi ci des mooy sunu doomu ndey bu tedd bii toog di moo Faye yeroo fii kër Baay Ndiol Samb jóge ba Dakar moom it ñu def ko pare mu ànd ak boo dem njabootu waajur bi ñëw toog bu boobaa bu programme bi daal kaddu yiñ ci bëgg yëkkati rek incha allahu rabbi nu yëkkati ko noonu daal moom la ñu bokk waxtaane ñu ni nañ ko tënkee noonu te mu nekk jàngale boo xam ni initié ko mag ñi ñoo ñu ko sant waaye ci ndigalu kan responsable moral fédération bi nga xam ne moom way la mag ñi dénkoon fédération bi ñu donnale ko ko niko Serigne abdul Aziz doon na le léppi way juróom waye mu am taxaway bi mu nekk taxawaayu jot yal yalla yàlla doon ne kelkeler yaram moom mole di mawlaaye muhammadul Habib Kébé bu ko defee serigne abdalla bismillah بسم صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا qawli mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bi ñu santee yàlla suñu borom bi nga xam te wax ji may wax su àggee moom la comme ni ma ko tàmbalee ni mu ko neexee waaye ñu ngi koy ñaan mu àggaleel ñu ko ci jàmm di julli ci sang-sang yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu waajur yi nga xam te ni ñoo ñëw ci bis bi yëpp di ci jiital suñu wayjur bu tedd bi di di alxaaji Mbay Njaay kon bu ko defee ñu jël kàddu gi ci làmmiñu na muxsinina wal muxsinaat di président Mamadou Diaw ku ci nekk xam na ni tey lii may wax nii kàddoom la sant ñi may sant ñëpp moom moo waroon a taxaw fii tey ndax mate na ko mën na ko waaye ñun lott nañ ci def ko moom it di ko ñaanal yàlla defal ko sutura bee mu mu wér ak jàmm ba mu delluwaat ci ay activité ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Habib sëriñ bi Kébé ñu ngi lay bu baax dina jox sa wàccuwaay di la wax ni suñu président bee di moom Mamadou Ndiaye liñ ciy wax yaa ñu ko gën a xam waaye ñaanalal ñu ko bu baax dooleel ñu ko ñaan parce que président bu exceptionnel la am président bu bu bu bëgg njaboot. waaye président bu mën a suturaal njaboot tey jii lépp li lépp moom la ba pare day avancé wu mel ni du woon moom waaye loolu nag cëram la li ma koy wax rek yàlla na ko suñu borom dolli sutura bu ko defee ñuy nuyu fédération des daayira tijaan de Thiès et banlieue comme ni ko Hadji Hamza Samb waxee léegi xam naa buñ ci jiitalee suñu woy jur bii di góor gi Malick Fall góor gi Baye Mbaye ñoom dinañu yóbbaale képp kuy mag nekk ci fédération bi di ko teg ci seen loxo ñu ngi nuyu tamit coordination des jeunes tidianes de Thiès et ñoom ñi nga xam te ni ñoo coordonné daayira yi njiital lii di Pape Issa Diène waaye kat mu ngi nii yónnee na délégation Abdou Mbaye ñëw na ñoom Papa Diaté ñoom El Hadj Sow ñoom ñoom baal gis nañu teewaay yàlla yàlla fay leen waye daayira muhsinina wal muhsinaat yi bi nga xam te ñun suñu rawance bu ndaw bi fofu lañ ko branché njiital li di suñu góor gi may wax legi di imam Babacar jaay te bokk bokk ñom bàyyi ba ñuy and ak ñom di def daayira ya, yo xam te chaque dimanche tuuru wasifa lay doon ñom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ndax ñun liñ naan ku ñeme dañ la dee wax dëgg fa yalla ñun suñu lepp ñom la moo tax dañ leen di sant bu baax a baax ñu ànd koog suñuy yaay yu tedd yi ñuy sol seen verba ñëw taaral bés bi kon ñu leen di ñaanal suñu yaay boo yi yàlla defal leen sutura yàlla yàggal leen suñu kanam incha allah ñuy yàgg di buggante di nuyu daayira muxlisiina wal muxlisaat bu kaw sara président bi di Abdou Sène ñoom ñëw nañu sant ñu indaale délégation bu am solo wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar waaw di wax ni gis nañu bu baax teewaay di nuyu nag suñu imam yi nga xam te ni ñoo nekk ci quartier di imam Mbaye imam Cheikh Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi koy jox wàccuwaayam muy suñu imam di suñu référence di ku tey di mag moo xam mag moo yar la daal ba boo gisee yow ndaw sax dañ ciy jàng àdduna ànd kook ñoom imaam Jaxate ak imaam Gay moom it jaar na fi sax xam naa dafa jàpp rek moo tax bàyyi mbër bu ko defee waa jàppate it ñëw nañ yónnee nañ fi ñoom ñëpp seen enveloppe imaam tamit sànq la fi jóge nee na dafa am dëkk kenn nekku fa rek moo taxoon mu ñëw def acte de présence kon moom it ñu ngi koy sant bu baax waaye di sant Gaydane Debo muy vieux muy suñu waaye ji nga xam te ni moo nekk fii wax dëgg fa yàlla jàpp na ci bis bi bu baax indi na fi doole indi na fi lépp di ko ñaanal li mu ubbi yàlla na yàlla def entreprise bu mag a mag ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon vieux lay sant bu baax waa nuyu ñoom tant bi tey ni mu taare ñoom la waaw waa ëglu suufa kon bu ko defee loolu dañ koy teg ci loxo président Abdou Aziz Cissé mi nga xam te ni ñëw na ànd ak Modou Dieng Aji Ibrahima Samb mu ngi nee toog waaw ànd koog xale yi ñoom Cheikh Ndiaye Babacar Faye ñoom ñëpp wax dëgg fa yàlla noppalu ko ñu benn yoon depuis démb ba léegi ñu ngi fi ngir bis bi taaru day taaru na yàlla na yàlla fay leen ci barke Serigne Abdou Aziz Amin boo ko defee ba tey ñu ngi nuyu suñu yaayi daara di soxna a Mbodj moom it wax dëgg fa yàlla muy jigéen boo xam te ne ku sonn ci xale yi la ñu ngi koy sant bu baax yaay Maymuna yàlla yàlla dolli sa sutura di sant suñu bàyyi daara di El Hadj Ousmane Sow moom it wax dëgg fa yàlla du yàggul dara lañ ko may tuuru ndokkeel ci këram waaye buñ fa ñëwee daal day mel ne danaan yàkkamti woon naa ñu ñëw ci kër lépp lu mu am da koy génne ci daay bi momit ñu koy sant bu baaxa baaxa baaxa baax ñu ngi sant tamit diwaanu rahmatan bil alamin bu mu sante président bi di Omar Mbodj mi tok momit wax deug fa yalla depuis bis bi ba légui heure bu ma gisé rek tax may soñu ci bis bi wallahi di ko ñaanal ñu bokk dëkkandoo ci kon bi ni doon suñu bay doon suñu grand doon suñu lepp waye and bi rafet kon yalla yalla yagal and bi yalla dolli len sutural donc lépp lu ñuy yéene rek seen kër kër sëriñ yàlla mottali ko ci ci jàmm kon bu ko defee parrain yi nga xam ne ñoom la ñu tuddee bés ñu ngi leen di nuyu bu baax comme ni ko am sec Samb waxee ku mel ni Abdou Aziz Jaxate moom ci daayira bi la ko waaw dafa ñëw ni moom laay man ci daayira bi laa ko ñu ko waaw waaye dañ la parrainé bis ndax am na loo xam te ni ñiy ànd di ko jëflante ànd ba tey bu ñaawoon loolu di ko xalaat kon Abdou Aziz lépp yow la yal na yàlla dolli sa sutura ba lépp li ngay yóotu nag incha allah ci àdduna comme li ma la waxoon rek pour ragal Serigne di ragal yal na yàlla dolli sa sutura lépp looy yóotu rek ci wàllu li ngay yëngu incha allah ci wàllu àdduna ak lépp lu mu mënti doon yàlla ko yàlla barkeel kon di nuyu tamit suñu parrain. di di Mor Fay comme ne ko am sa waxee mom sama baay la ndax ñom ñoo ma yar ñu tuddo ñun ñu ñëw yaroo fi sen sen kanam sama mo and ak sama baay bu tedd bi di Mokhtar sa kon bu ko defé ak ak Dubey ak ñi mu andal ñep jóge ba Dakar waaw keroog bi ñu ñew fi ci saalu Mabou di ko wax ni dañ la paré né bis wax dëgg fa yalla mënoon jooy sax dina ko def ndax nee ma aw lu dul baba des kon ku xalaat boo xalaatee loolu noonu bés boobu kon aw ma fay te it wane na ko moor yàlla na sa sutura sa tur bi daal muy moor gaaw waaw nga ci baba des waaw di nuyu tamit suñu di mami njaay moom wax dëgg fa yàlla sañ-sañ rafet na loolu waaw yàlla ko sutura mami kontan nañu ci yow ya, bu baax a baax momit ci daayira bi la bok waaw xeyna sey moko genné ci koñ bi mu xawa sori waye xelam ak xolam ak xalaatam lépp musul jug ci ya, daayira kon momit bu ñu dugaté maré na ko ci bokk boole ko ci maré ni bes bi kon lolu war kon mami yewé yalla yalla defal la sutura ba ngay sey yalla defal la ba jamm nga am doom yu barke insha allah ci barke sëriñ Babacar Si di di sant wa daara ji daara faskebe wax deug fa yalla ñoom it bés bi bo ba léegi ñokay koy ànd ak ñun boobu ba léegi ñu bo ba léegi ba ci tay si suba rek ñoo fi ñew wacce fi kaame kon bu ko defé wa daara ji yépp sëñ bu kon xamna dañ koy tek sa loxo rek àggaleel ñu ko ba ci sëriñ ñu ngi leen di sant bu baax ma sha allah daara ji daara ji daara ji moom benn la waaw bu du ñaar kon ñu ngi koy ñu ngi leen di sant bu baax a baax macha allah di sant bu baax daayira kër sëy ñoom it di leen ñaanal tamit jàmm kontaan nañu waa daayira kër sëy waaw daayira Serigne Saliou Touré tamit ñëw nañ ñoom ah wax dëgg fa yàlla macha allah. ñoom ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal bu ko defee nag ñu ngi sant waa pël bi yëpp ci xale ba ci mag góor ak jigéen koñ bi tey kenn desul wax dëgg fa yàlla man am na kanam yoo xam ne sax bi ma leen gisee sama yaram dafa taw ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di ñaanal gis nañ taxawaay gis nañu jàppale bés bi rafet na tey iya, yéen a ko taaral ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax képp ku dëkk ci koñ bi rek ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm waaw di nuyu suñu kilifa gi agsi léegi di Pape Amadou Faye ñun lii ñuy wax mooy li ma tudd léegi fédération beeg lépp ak coordination bi mag ñi ci loxoom lañ ko teg ñun njaw ñi tamit ci loxoom lañu nekk waaw di ko ñaanal rek yàlla dolli ko sutura ba li ko mag ñi yem mu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin président li ma la doon wax rek ñun say outil lañu say alal incha allah jërëjëf fay di nuyu Serigne Modou Mbong moom agsi na léegi di mag mu baax ci koñ bi di ñu conseiller lu baax a baax fépp fu ñu bu ñu ñëwee ci moom rek benn wax lañuy wax kon sëñ Modou jërëjëf yàlla la yàlla fay wax jooju daal lañ ne woon nañ ko ubbi ci làmminu président Modou Ndiaye ak présidente Soxna Anta Ndiaye di sant bu baax a baax suma xale jigéen yi nga xam te ne ñooy jigéenu daayira bi waaw seen plan orange wax dëgg fa yàlla rafet na yéen a taaral daayira yi yéen taaral bés bi tey ni ngeen di neexalee daayira yi chaque jour tey wax gën koo wane kon yal na yàlla fay leen Serigne Babacar Sène boog lii rek la. Ablaye yal na yàlla dolli mottali matal nga yóbbante président Mamadou Ndiaye. rafetal nga ko yàlla na yàlla boole leen yéen ñu ngi yilif yëpp rafetal mboolem seen i mbir ñu nuyu président El Hadj Pape Amadou Faye di président fédération daïra Tidiane de Thiès et banlieue ma am kàddu bu ma wax te fekkewu ko mu yegg si jëfandikoom ci jataay bi dëggal ko mooy ñii toog ci kaw ñooy ay kilifaam dañ koo dénk rek en tant que njaboot ni ko doxalal loolu nag wane na ko ndax fekk na fii ñoom bàyyi Mbër ñoom Baye Alxaaji Malick ñoom Baye Maadi ñoom Baye Muxtaar ak mag yi deme ni ñoom ñëpp mu jëfandikoo nii mu jëfandikoo kon lii rek lañ doon xaar ci moom te lii rek moo taxoon mag ñi yan ko liñ ko yan bu ko defee suñu délégation nag ñun ñëw na muy daara soxna Aïchatou si bët njaboot gi yëpp def nañ mobilisation ñëw def taxawaay bu am solo na ànd ak mën naa koo tudde mudiru daara ji ndax décentralisation Mawlaay mu di Maam Maodo ànd ak Serigne Ibrahima Kébé ànd ak Mawlaaya Abdul Aziz Diène ak njaboot yi ñu ko seqal yépp nañu ko daan rafetale rafetale ni lañu ko am na yàlla doon lay rafetal seeni mbég Sëriñ Njaay sunu wayjur alhaaji Papp Cuum Njaay sunu wayjur alhaaji Mamadou Sow sunu wayjur alhaaji Mamadou Ndaw sunu way jur soxna Xadi Fay sunu way jur soxna say Kaba Samb ñooñu la njaboot gi bind ci këyit bi waaye mboolem aji dawe muxsinina wal muxsinaati en particulier mais en général fédération beeg xadara bi waaye jullit yi ñëpp xaj nañ ci yàlla na yàlla yeesal njëggal ak yërmande ci ñoom yu sag lañ di nuyu tamit kilifa jotaay bi di El Hadj di nuyu oustaz Aliou Diakhaté imam di nuyu Serigne Modou Ngom suñu dëkkandoo bu baax la macha allah taxawaayam rafet na di nuyu suñu président di El Hadj Papa Amadou waaye di nuyu tamit. El Hadj Malick Fall nga xam ne moom mooy suñu kilifa ndaxte moom mooy premier vice président COSCAS di nekk mag mu baax mag mu yiw mag mu sage yal na yàlla dolli fanam yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla bàyyi ko fi mu ànd ak mu bàyyi ànd fi lool te ànd ak wér di ñaanal suñu président président moom macha allah comme ni ko am sa waxee rek li ko li tax mag ñi joxoon ko. mag ñi xam nañ ko te réccuwuñ ko parce que fédération bi fu mu ko fekkoon rek bu ko fekkoon muy dox dix dix kilomètres moom yóbbu na ko mille kilomètres te loolu mag ñi mënuñu ko kon bon ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk fanam ak sutura moom ak ñi mu koy àndal ñoom Ibrahima Samba ñoom Amza ñoom sëñ Babou ak ñoom Khalifa Ndiaye macha allah. yal yàlla kattanal leen yal na yàlla dëgëral leen yal yàlla defal leen ndam ci lii nga xam ni moom la leen mag ñu bàyyi am nañ ci yaakaar loolu di nuyu waa gox yépp xam nga xale yi ni ma gisee seen carte bi niñ ko libalee dama ci kontaan loolu parce que di ànd ak ay nit ñu làqu nga fàttaliku leen fàttaliku élage àla ñen fàttaliku góor gi Yuusu Samb fàttaliku Pape Serigne Ndiaye fàttaliku Mamadou Sow fàttaliku El Hadj Papa Thion Ndiaye soxna Xadi Fay fàttaliku Mamadou Sow ak seeni kem loolu am na solo seen xalaat boobu rëy na ba tax na nii lañ leen ñaanal yal na yàlla xare leen àjjana yal na yàlla bàyyi fi yàgg di nuyu tamit Pape Mar Samb moom bu Youssou Pape bu góor gi Youssou Samb moom yàgg na fi lool presque moo fi njëkk ci dant bi boo ba léegi mi ngi fi bougé wul Mar kontaan nañ ci yow sa taxawaay ci jàmm gën rafet na ku xam sa papa xam sa nit ku xigma la woon mais yow doon ko ko cent pour cent yal na yàlla jàppale la di nuyu tamit ci wàllu koñ bi ama ama Adama Fall nga xam ne moom tamit nit ku baax li tax ma ne xale yi dama kontaan ci ni ñu limalee seen moo di fàttali ko ñu dem mais patronel ko ki xam ne mooy suñu kilifa di xalif général gannaaw loolu mag ñi nekk ci dëkk bi ak bépp bépp tuux ñu bàyyi la xel sëñ Modou Mbamu ngi mi nii ñi fi ay taalibu sëñ Xaadim loo ay neen mi ngi nii ñu bokk ko ñu patronel ko si sëñ Saliou Touré ay njabootam ñu bokk ci ñuy patronné bés boole ko ak sëñ ki nga xam ne moomee sëñ Abdou Aziz Sey boole ko ñu patronné bés loolu man daf di bokk parce que penc bi moo koy def penc bi loolu moo koy defar yow fa nga nekk nekk fa nga dëgër mais xel yëpp rafetal xel yëpp comme ni leen ko sëñ Habib bi jàngale sëñ Habib képp koo xam ne. yaakaar ngeen di ñëw ci jotaay xam nga ne moom ñëpp la def ñëpp lay bàyyi xale yi tamit ñu ngi récité bu baax leçon boobu nga leen defal ba tax na ngi leen di ñaanal yàlla ñu dee kontaan ci ñoom suñu njaboot la ñu bu ñuy nangoo di def ay daayira dimanche bu nekk ñoom ñoo ñuy ngi leen di ñaanal yàlla te ñu ànd li ñu àndee aussi dafa daal suñu xol dafa daal suñu xel parce ñoom àndandoo boo xam ne. ñi tane dañuy yóbbaale ñi ñu tane ñi tane ñu tane loolu mu nekk lu rafet loolu mooy àndandoo diine kon boon président Mamadou présidente Anta taxaw na kontaan nañu seen taxawaay yàlla mi am te yàlla yàlla leen moo tax fu ngeen taxaw seen yaay yi dar leen seen baay yi dar leen oustaz Madi ñoo lay nuyu bu baax El Hadj Matar lay nuyu bu baax. El Hadj Alioune Touré suñu mag ñoom lay nuyu bu baax di ñaan yàlla daal yal na yàlla barkeel jotaay bi sëñ Habib yow suñu sànq sagu kër sagu kër Cheikh Hadji Malick parce que li am nga fula am nga fayda amuloo par parloo te teg sans sa tànk ci défendre mag ñi yal na yàlla fay la kontaan nañu trop ci sa taxawaay El Hadj Mor ñu ngi lay sant di la gërëm teel ngaa ñëw wayu neex na macha allah loolu daal moo am ay yoo xam ne bëggoon nañ ko jiital di ñaan yàlla daal yal na yàlla barkeel suñuy jotaay allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ci ay njaboot yoo xam ne kenn dootul xam nan lañu toll te waajur bi ci la bokk ndax amaana mag ñi nekk ci gox bi moom lañ ko dénk ak ñi demee ni ñoom ci gox yi ñu nekk kon yow it yàlla na yàlla doon la wér yàlla na yàlla doon li la sutur yàlla yàlla doon la dëgëral yàlla yàlla doon li la kàttanal di bëgg a jox kàddu nag ki nu fi tax a daje nu bëgg koo déglu te ñaari maamam bàyyi ko xel mu di Cheikh Seydil Hadji Malick Serigne Babacar Sy radiyallahu taala سيدي عبد العزيز الامين الخليفه التيجاني رضي الله عنه باي كو خل باي بو خمنا دفنا ني كومين جتايام بوي ني سي سنوب تي فان نيم كو دينك ييب تامو نيكون دونو مات ني نيو تيي وون مو خيي يان كو ku nekk nag sa xel daw xalaat lu nekk waaye boobaak léegi alhamdulilahi rabbil alamin mooy ku àndul woon ak moom yaa ngi ànd ak moom ku ko dul woon déglu yaa ngi koy déglu ku ko dul woon bàyyi xel yaa koy bàyyi xel yàlla defal ko sutura bu am solo nag mooy amul sens interdit ni ko sëriñ Abdoul Aziz bàyyee xel radiyallahu anhu نون لوكو سيرين بابا بيرسي محمد المنصور خليف جنرال دي تيجان باي خل نون لوكو مولم جابوتام باي خل سيرين حبيب فنيو تاديك مو مو بيرو كو يوبنتي نيتي مو بودي بير كير سيرين بابا بيرسي مون تاخول نوي واخ موي لي عبد الله عبد الله سام واخ سام بريزيدان نيكو سا انسترومون لا ني سوي كود لا ني بو بوغي ديفاليكو ديفاليكو sa illeer nañu boo bëggee jëfandiku jëfandikoo ñu loolu sutura bi ko ci yàlla defal mooy dafa summeeku ba set wecc ci wàllu deret ak famille ngar daaj joo taalibe ko bàyyam defe woon moo tax mu yenu lu ku mu bokkalul génération yenuwul yàlla ko mu doo te insha allahu rabbi tànt boo mën a dem ku fu mën a yëkkati kàddu kàddu bu mu mën yëkkati gi jëmale la ko kàddu boobu du la lool ndax mag ñi jiitu ci yow yàlla na yàlla doon lay sàmm loolu bu ko defee njaboot gii rek lañ lay seedeel muy njabootu muxsiniina wal muxsinaati waaye ci wàllu coordination ak coordination bi en général itte bi nga lañ santoon ci journée bi ñun mën nañ laa seedeel ni def nañ ci ba def ci lu ñu ci mënul woon ndax porte à porte def amul ëtt bu ñu bàyyi amul kër bu ñu bàyyi amul responsable bu ñu bàyyi ci biir fédération xëy na jamono moo indi ñii war a toog ci jataay bi am ñeneen ñu dem toog beneen jataay wuutu ñu toog ci jataay bi ñun ñu wuutu leen waaye ñi njaboot bi yëpp bu ñu fi ñëwoon xajuñ ci huit bâche kon def nañu itte moo tax yàlla defal leen sutura bii ci tànt bu tedd bi kon loolu rek lañ la bëggoon seddeel bala ñu laa jox kàddu gi di la ñaanal yàlla li sa maam wax ni moom lañ ñuy njaboot bi ñaan muy sutura ak li mu làmb yàlla yàlla dool li la ko yàlla dool li fekk fan yàlla dool ne kelkelal sa yaram may la kàttanu loo bëgg xalaat xalaat may la kàttanu loo bëgg faj-faj may la kàttanu foo bëgg dem dem fa di jaay taaha yaasin sallallahu alayhi wa sallam Thank you. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكي دجت تتايبي جلنا يالا ننقل فيالو مكنيك جيت بالوشي سيدنا شيخ مدد الشريف رضي الله عنه أكسر الحاج عمر الفوتي أكسر مام فارتو أما بالغدو السبع قبل طلوع الشمس والآصال أقلال قبل غروبها déggal lool ñu di leen ngay tudd sa borom suba ak ngoon rijaalum waa foofu nag lu ca leer rijaalum la wax de mës naa dem benn jàkk fekk ñu la fa jigéen de malade mës naa dem benn jàkk laa wax fekk ñu la fa ci suba bi jigéen ña cheikh alhaji malik yare na leen loolu alquran moo wax ne rijaalun la tulihim tijaratun wala bayun an zikrillah an zikri lu tax foofu waxul an zikri rahman waxul an zikri aziz waxul an الرسول ما عم ذكر الله ويبعد بغير وحي عمو جعل ينتبه المكان ويلا تبو بيز وسوف اللي يقول للي عم ذكر الرحمن يلا سوف اللي يقول اللي في بيوت عزيز الرحمن سوف اللي يقول اللي في بيوت عزيز الرحيم في بيوت عزيز العزيزة من هو بيت كل عزيز, العزيز. وقل في بيوت العزيز العزيز عزيز العزيز وقل في بيوت العزيز الرحمن مبايع الرحمن وقل في بيوت العزيز الرحيم ما في بيوت العزيز الله تجسد الله لك بالنور لا إله إلا الله ما يبني بسفرة سلي لا إله بدي تعدل وإن الله سفر لجل وكنت أنا ولد من بجر بغير xamal ne diggante bi safara la jëm seetal loolu mais fii bu yuutin asina Allah Allah nag mooy gis tur bi nga xam ne ruux bu dem xaju jëf Allah dem xaj najat. ca mu nekk baat bu wéet allah kon amul li ci am solo mooy suñu borom nee na góor ñooñu koy def ndeysaan rochal ajmaari ca dégg xam-xam la mu ni dëkk marché ak mujj marché day wàññi wërsëg gis nga boo fekkee ñuy dëkk marché yëpp del seet rek ak ñi fay mucc del xool seen place yi dam mel del xool rek marché kenn du fa jëkk kenn du fa mujj dangaa bàyyi ba mu naaj te bu wàcc jotee teel a la wàcc waaye toog fa toog toog fa toog fa toog fa ba xajje fekk la fa màtt la moo tax alquran moo ñu ko wax la tulhikum tijaratun wala bay'un an zikrillah waxul an zikril aziz kon ba tey allah la lay jàngal Hamza allah ba mu ne wa iqaami salaat xam nga mooy ku bëgg mu fàmm ci julli day doon nga jox ko lu mu weer ndax julli farata la te jël tariixa jàmbur du farata waaye boo ko xasee bëccël xam nga tariixa li tax mën lu tax kenn mënu koo wet bi mooy mooy tey soo nee conférence bi surgal bi bu jàllee dinaa dinaa sant yàlla lenn du Tuubaa dañuy màggal ne rey nag ak Tiwaawan di gàmm nga ne rey yooyu ci ay xew bi daal boo ko mu nga génn ca kaso bi dinaa rey nag noos gis nga koo jëfuree jëfur dafa di noos ñun dama tol ba noos man de taluma noos ila ande ànd ak góor gi ñu romb promenade ci so waa suma bàyyi mu ne ma lii lan la ma ne ko doxam tu mu ma tal ngeena doxam to japp jàmm la tan ngeen a doxantu yooyu ya, ko boo dee reere mbaxal sax de pàpp ca reeraw ndax da laa xel ñeen ñi loo seetal loolu yaa ngi noos pour rey nag am ay gan terale leen nag bu araamee yow sa bopp nga génn reyal sa bopp nag yow boobu ko yées ndax nag góor ca Tuubaa reyoon na boppam nag ko góor gi ci Tiwaawan reyoon boppam nag kan yàlla la bu ñu gisul gan taluñu nag moo tax nag wert naa salaatul faatiha ba dëkk ma doo ko dégg waaye weddi naa ko werd wedd werd boo bindee r bi weddi la boo weddee duñ la tëj boo weddee boo bindee r bi ñu muy al wér ak al weddi nee na wa iqaamis salaat fi toog ñun ñu fi ci sama classe bi ku ci weddiwul sa bopp moor fàttaliku nga ay temps pour nga jullit du problème la de ñun la dama jullit bi dee ba waxaale ma ko julli boo taw xale sax pour nga màgg nii di julli problème la Ibrahima ngi nii di ñuy nekk xaleel sedd bi dafa nekk lool ajaa tëbe julliwul gee tëdd jël mbàjjam ay làmp di sang ba fo le moo ci nekk dugal na ko Adja Guèye yi Adja Guèye waaye sama yaay ko jub kër xam nga yàqal na ko Guèye mais foofu boo xasee ba jël tarixa bi rek dootoo ko sàggane bo xasee ba ni bu conférence bi jeexee maray daal gis nga bo ko xasee ba wax ni ya ko misal néew julli bi nekkee farata bañ ko noonu la ren di nag yow yaa di samedi bu conférence bi jàllee ba waxtaan ba jeex altine ma rey nag lundi bi c'est obligatoire ci charia ci fiq nga rey nag loolu mooy tarixa tarixa mesure la lii boo ko jàppee dootoo ko bàyyi nga ni fas naa bu ma jëlee tarixa bi dootoo ko bàyyi kon soo ko xësee ba jël c'est obligatoire ndax bàyyi nga koy tax nga dem safara xanaa xamul woon ni Sénégal ñaata